loolu euh, mënul doon loo xam ne nii euh, mun nañu rafet njortu ci le fait que mu jël décision bañ a ñëw est-ce que du sage décision ci sa xalaatu bopp. mais euh, munu ma wax sage la wala du sage parce que. quoi qu'il en soit. àtte mhm. ak damay imaginer ci li ñuy wax nii Ousmane Sonko waroon a taxaw benn <laughs> gone taxaw ci kanamam xam nga ak kàddu yi nga xamante ne nii ñi nekk ci salle bi relayé nañ ko dañoo jàppoon ni li tax. oui depuis boobu ba yooyu sawru mhm. mooy xëy na lu mel nii. Mhm. parce que moom yàgg na ko wax ah. yàgg naa wax ni gars yi seen jubluwaay bi. Mhm. du dara lu mooy def ma comme ni ñu defoon DSK. Mhm. soo fàttali ko Ousmane Sonko ci ay sortem yu bëri. oui da ciy ñëw. ni en réalité li ñuy wax dara amu ci. li ñu bëgg mooy euh, jafandu ci. ngir wax ni man lii am na lii am na. te liñ ci jublu rek mooy. sénégalais yi dem ba wàccu maanaam taqal ko yàq deram présenté ko d'une manière boo xam ne uuti naag xëy na mhm. ni mu jàpp noonu la ko sénégalais waree gis moom bu demee ba wax loolu firndeel ko mhm. ne am na ci ay information xëy na mooy justifier le fait que depuis boobaak léegi même bu fekkee mhm. taafantaloo na ni euh, sécurité am nañ ko matal am ay conditions yu posées pour mu mën a dem xëy na mën nañoo jàpp ne loolu euh, kii la rek euh, à la limite. Euh, piste la nii rek. Mhm. Euh, bu muy teg par rapport ak contexte bi mais xëy na li mu doon bañ mooy li xew nii comme li nga ko waxee. Mhm. effectivement dem ci procès boo xam yaa ngi teew gu nekk vingt ans. taxaw. Mhm. ne la yaa ko violé. xam nga di expliquer péripéties yi comme ni nga koy. dundee nii. c'est vrai que ni ku ci nekk boo nekkoon à sa place. Euh, yomb na nga am une lecture de la mhm. chose mhm. maintenant nag loolu moom la mhm. moom Ousmane Sonko appréciation bi jox naa rien à voir ak li nga xamante ne moom mooy accusation bi tegu ci kawam te mu war ko mën a setal ngir ñu xam la ca am ak la ca amul loolu moom c'est à un niveau pour man jàpp naa ne ñaari war ñu ko mën a boole mais toujours est-il que ak lu mënti xew moo xam moom Ousmane Sonko mu teew ak mu ñàkk teew ñoom ñi jàpp ni viol dafa am ñu ngi def ñoom ngir wan ne en réalité ñoom ñoo nekk ci dëgg. Mhm. en l'occurrence Adji Sarr. ma ngay wax ma ngay expliquer. Mhm. naka la duggee Sweet Beauté. Mhm. Euh, rencontre am ak ki nga xam te ne mooy Ousmane Sonko. li ci jot a xew yëpp. dëggal na boppam bay wax euh, façon massage ya fa am ak yëpp. donte Ndeye Khady Ndiaye ñoo ne weddi ko ne ko xëy na loolu moom moo jàpp ni mooy am mais amul. Euh, ci Sweet Beauté bi nga xam te ne moo ko moom. Adji Sarr di gën a dëggal boppam. di xamal ni loolu am na fa voilà. wax na sax ay some yu mu jàpp ne xëy na saa yu Ousmane ko ñëwee da koy jox. n'est-ce pas. Mm-hmm. Euh, sax yu mu koy jënd jëndloo. Mm-hmm. ah euh, pour mu koy utiliser yooyu yëpp mu ngi koy wax mais jàpp naa ne ba fi ñu ci toll. Mm-hmm. yegg guñu ci ñun li ñuy xaar en tout cas ku mel ni man nga xam te li ma. intéressé foofu sax foofu sax laa doon jëm. parce que tey euh, sànq bi ñu toogee rek ñu ngi koy wax balaa mbir yi di tàmbali. Mm. mooy aujourd'hui bu ñu demee ba mbir mi toll fii. est-ce que itam xaaruñu woon lu gën a li nga xam ne nii moom lañ moom lañu nekk. lu uteeg wax xëy na peut-être xam nga comme comme comme le débat est ouvert waaw comme ci débat la. Mm-hmm. di interpeller ça et là certainement buñ ci jugee dinañ yéeg mm-hmm. ma jàpp mooy ni euh, comme acte la. Mm-hmm. xëy na dinañ jël élément yëpp en compte. déglu leen et puis affaire yi dafay continuer jàpp ma ni dina yem foofu parce que viol. du ci ay wax lañ koy prouver. ay jëf la. te bi njëkk. mooy docteur bi ko war a. te du benn na wala amul. te du benn ci ci ci ñoom. liñ ji ñaate viol répétitif bu toll ci cinq je pense mu ne cinq fois. waay donc loolu jàpp naa ni. Mhm. du loo xam ne rek da ngay ñëw naan fii la ma jaar fee la dugg fee la nangam non. loolu wax nañ ko ci penc bu ñëpp jot ci. Mhm. boy na ci noppi. Mhm. pour man c'est pas le plus important fii ci toll. yow déglu nga ay audio. waay dégg nga ay témoignages. wax nañ la nangam nangam ak nangam loolu Sénégal yëpp xam nañ ko. ku ne jamono bi ñu koy def ñëpp jot nañu pour man tey fi ñuy li ñuy xaar li waral tey mbir dem ca chambre criminelle mhm. mooy en réalité ñu dem ba attesté ni li aji Sarr di wax dëgg la mhm. firnde yaa ngi nii wala li Adji Sarr di wax du dëgg mhm. boobaa Ousmane ko am nag lay bu mat sëkk ngir li ko yoon may ci jamono jooja mu utiliser ko bokk na ci li mu yàgg wax ni. Mmh. lii dossier bu vide la benn juge mënuma cee àtte tëj ma. lii dëgg mooy ne compli euh, euh, euh, complot moo ci am. te mmh. bu boobaa si dina dina dina ubbi bunt yi pour que ñu xool en réalité. Mmh. lan moo amoon dëgg-dëgg ci dossier mais ce qui est sûr mooy ne fi ñu ci toll nii. ñu ngi ci. comme ni ma ko waxee léegi on aura l'occasion incha allah comme Ousseyn moom. moo ñu mhm. fa teewal ak euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Fatima. Mhm. ñuy jot di ko jox ñi nga xamante ni ñoo si internet ci fiñ ci mën a yem. waaw ci fiñ ci mën a yem. Mhm. loolu c'est important ñu xamle ko. d'accord waaw. d'accord informer c'est choisir. voilà waruñu dugg ci yenn irresponsabilité yi. ba loo dégg rek wala loo wax rek nga ñëw génne ko. non il faut que tamit ñu xam ko viol la ñuy wax. donc pour man mun nañu yem ci principe boobu et puis ñu jéem a bàyyee xel loolu. d'accord wax nga wax nga léegi ba ba tudd euh, firnde. Hmm. ndax firnde dina gën a mën a taxaw li nga xam ne nii euh, moom la euh, le médecin. waaw Alfousseyni Gaye wax ak certificat médical est-ce que du compliqué firnde gën a dëgër certificat médical. mais justement bu ñu waxee ne viol am na loolu mooy élément d'appréciation yi. c'est-à-dire buñ bu xam nga xam nga tribunal du marché. Mm-hmm. marché boo xamante ne dama lay romb këf après nga yuuxu naan sàccee. sàccee ñuy taxaw di lijjanti waaw nii non. loolu preuve preuve scientifique non da indi ay preuve scientifique àttekat yi taxaw mu am débat. contradictoire mhm. parti bi ni lii am na kii nangam avocat yi lay c'est mhm. dommage que fi ci toll nii benn parti rek la ñuy déglu et c'est très dommage su ma nee benn parti mooy nii Ndeye Khady Ndiaye qui est sans avocat aussi moom laa lay wax ni mhm. l'accusatrice la ñuy déglu ak Ndeye Khady mi nga xam ne xëy na moom mooy propriétaire euh, Sweet Beauté. Mhm. et c' est dommage parce que li ñu doon souhaité quand mooy ni parti yëpp mën a teew am représentation ku ci nekk. ñu respectal la li nga xamante ne. mooy le minimum. Ah, ci say droit su ko mhm. defee ñu mën a xam dëggantaan lan la lan la lan la moo ci am la ci amul mais comme ni muy doxee nii forcément. Mhm. même bu jeexee sax dina am benn goût inachevé. ci li nga xamante ne mooy ci mbir mi. mais quoi qu'il la ma gis mooy ni dafa benn juge yi fi nii dañoo Mhm. ci ni. dañ ko jeexal tey maa la ko te man am naa ci ay information ma am yoo xam ne nee nañ ma tey fu ñu jaar. Ah, mais mais ak ak situation bi nii moom buñ ñu ko naree. ci ah, jeexal tey dina boo xoolee mbiri ni muy doxe sax nga xam ni euh, logique pour logique foofu la ñu jëm. maintenant ndax. loolu dafay tekki ne mbir yi jaar na yoon ou pas mais ce qui est sûr mooy ne ay avocat son Sonko déjà. Mhm. am nañ benn lecture ci mbir yi. Mhm. jàpp nañu ni commande la. Mhm. commande politique. ku mel ni maître Ciré Clédor Ly loolu la jàpp. Euh, sore ci loolu am yu mu ci joxe. yu mu ca wax mais euh, jàpp naa ni loolu yëpp. pour man bu ñu jeexalee journée bi. ci la taxaw seetlu yu dëgg di am. Mhm. ngir ñu xam réellement li ca am ak la ca amul mais ce qui est mooy ni jamono ji moom. Mhm. ca tribunal ba yëf yaa nga ca. ku mhm. nekk euh, yaa ngi yaa ngi joxe. li nga xam te ne mooy sa version des faits jëm ci wàll wi maintenant on attend de savoir ce qui va se passer parce que ñu ngi wax sax même la nuit du 2 février ki nga xam ne mooy Ndeye Khady Ndiaye mu ngi raconté li nga xam te ne moo aju euh, ci euh, ay faits ni ko Ndeye Khady Ndiaye di rapporté di ko expliqué. Mhm. li muy fa li muy li muy wane. saa yu mhm. jeexale rek. Mhm. mooy ne Ousmane Sonko liñ koy tuumaal amut. mu mel ni kon ci position bi njëkk ya. ca la mu waxoon jëm ci Ousmane Sonko daanaka loolu la feddaliwaat. moom boo ko dégloo moom Ndeye Khady Ndiaye. ci ñi nga xam te ne jamono ji ñoo teew fële euh, ca tribunal Dakar di ko suivre. expliqué na ko ñëwaat na ci et je pense que dinañ am occasion sax léegi léegi. ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo ci pàcc bi nga xam te ne moo ñeel Ndeye Khady Ndiaye li mu wax. mais beneen pàcc bi nga xam te ne également Adji Sarr. ñëw na ci ci liñ ci mën a wax. Mhm. waaw d'accord